bu la wooyee ne la guddi gi dugg la jant bi dem na te sona rek su boobaa noonu lay doon jële nañ ci ibnu abi awwab mu ne nekkoon nañu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci tukki mu ne yonent bi oor ba goon mu ne mu wax góor ci ñu amoon wàccal ma ko soo a xaar tuuti ba ngoon gën a dugg ko wàccal باب إذا أفطر في رمضان ثم طلعت الشمس حدثني عبد الله بن أبي شيبة حدثنا عبد أسامة عن هشام بن عروة عن فاطمة عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت أفطرنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يوم غيم وطلعت الشمس كيوم هشام فأمروا بالقضاء قال بد من القضاء وقال معمر سمعت هشام فيقول قال قال وقال معمر سمعت هشام يقول لا أدري القضاء ولا لا bunti su fekkee ne li dafa toog ci weeru koor بسلام gannaaw bu mu dogee jant bi génnaat mu ne solo nañ ñu ne ci asbaaw dami Seydina Abubakar Siddiq radiyallahu anhu mu ne dox bis boo xam ne jaww ji dafa niisoon kenn mënta xam jant bu soo mu ne gannaaw bu mu jant bi feeñaat mu ne ñoom xisaab ne ko digal nañ leen ne nañu oor باسبوع يخفق يقعد باسبوع وكفايه باسبوع خمنا moom la jant bi génn loolu mu ne Jean wax na ne xam ndax fay nañ ko wala fay waaye dina lay def باب صوم الصيام قال عمر رضي الله عنه للإخوان في رمضان ويلك وصبيان وصبيان ما صيام فضربه حدثنا مسدد حدثنا بشير بن المفضل عن خالد بن ذكوان عن الربيع بنت معوذ قال ارسل النبي صلى الله عليه وسلم غداة عاشوراء الى الانصار اصبح مضطرا بيتنا بقيه يومه واصبح صائما فليصوم قال فكنا نصوم فكنا نصومه بعض ونصوم صبياننا ونجعلهم لهم لعبه من العلم فاذا بكى احدنا على الطعام اعطيناه ذاك لا يكون عن الإسباب guddi xoor ak xale yi nga xam ne seen xoor jotagut sidna Omar radiallahu anhu wax na benn nit boo xam ne dafa màndi woon ci weeru koor na ko alkeresa torox nga suñu xale yi di oor te mat ñoo oor sax dal ko dóor yow day dox nii ci weeru koor loolu yoroo dara mooy sàngal dal ko dóor yaram solo nañu jëlee ci solo nañu sallallahu alayhi wa sallam na bisi tam xarit ku dem ci nga xam ne ñoo wër Madina dëkk lan barawal ansaar képp koo xam ne ñu xëyee oorut na jàpp des ci bi oor ko képp koo xam ne itam dafa xëy oor na continuer kooram moom nag moo nekk fii moom ndaw si nekk bi mais ñu nekkoon di or di or loo sax suñ gone yi di leen utal ay foofaay yoo xam ne su fekkee dañ jooy nañ di naxee wala leen ne nekk lekk la naxee leen ko ba dem soo ñu bokk anam ñu nekk loolu صيامه لقوله عز وجل ثم أتم الصيام إليه وان النبي صلى الله عليه وسلم عنه وعن كلمه وإخبار عليه فما يكره من التعمد حدثنا مسلم قال حدثني يحيى عن شعبة قال حدثني قتادة عن شمس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا توافقوا قالوا اني قد قال لست أحد منكم اني اطعم ووسطى واني ابيت اطعم ووسطى বুদ্ধি করার পর orang mengonjol lekun sini orang budigi jangan baca baca bela lekun sini saya lekun akuannya nanti mana kor baca budi saya nak nyom nyowane budi aku kor yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mau kotere mau kotere jokol yang budi bobu ngir yeram den ak desal sen budi ak si wóotantine da nga xam ne nit ñi wóotantine nit ñi dinañ ci roy gannaaw loolu jëlee nañ ci Shu'bata mu ne nettali na ne jëlee ci Qataada mu jëlee ci Anas radiyallahu anhu mu jëlee ci Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu leen ne bu jokkale koor ñu ne ko yow da jokkale mu ne man du ma comme man dañ may leeral di ma nandal aw wala mu wax am na fu may fanaan yi may jox ma lekk yi ma jox ma naan kon man mën naa jokkale wala yéen a sallallahu alayhi wa sallam عبد الله بن يوسف حدثنا الليث حدثني ابن الهاب عن عبد الله بن خباب عن ابي سعيد رضي الله عنه انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تواصلوا ايكم اذا اراد ان يواصل فليواصل حتى السحر قالوا بين ان نتواصل يا رسول الله؟ قال من يسلك يجوز اني ابيك بالعنوي وساق المسكين. jokkale koor lay wax mu ne solana jëlee ci abdullah ibn amar radiallahu anhuma mu ne yonent bi salallahu alayhi wa sallam tere na jokkale koor ñu ne ko yow da ngay jokkale mu ne man dañu ma nii man dañu may leeral di ma nandal ñu sorobate jëlee ci abu saïd al xudri radiallahu anhu mu ne dégg na yonent bi salallahu alayhi wa sallam wax ne leen jokkale koor képp ku bugg jokkale koor ci yéen na jokkale ba njël loolu doy na ñu ne ko yow lay jokkale mu ne man bokkuma ak yéen bind man am na fu may fanaan am ku may jox ma lekk am ku may jox ma naan sallallahu alayhi wa sallam حدثنا عثمان بن ابي شيبه ومحمد قال اخبرنا عبد عن هشام بن بكر عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها قالت نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال وحكم قال له الله قال يزيدكم اني يشكرني ربي ويسلم وقال ابو عبد الله اني يذكر عثمان رحمه الله بتي جفرت ورليوخ daanaka benn la waaye riwaayaat bi moo wute ak ñu ko solo solo nañ jëlee ci Aïcha radiyallahu anha mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tere na jokkale koor ngir yërëm nit ñi ñoo ko yow da ngay jokkale mu ne man bokkuma ak yenn judd la man dañ may leewal ñu ma nandal wala suma borom dañ may leewal ñu ma nandal برهام باء وراء ألف ثم ها ميم مجل فيض تيجان جخن نوينان